takwalu man mën euh, am beaucoup plus de poids que yeneen deux listes yi bu euh, euh, sàmm sa kàddu ak bu jàmm ak njariñ waye takku dafa def recours hein, pour recours contre l'investiture de de d'Ousmane Sonko tête de liste de la coalition de la liste PASTEF euh, ñoom nee nañu nañu annuler li nga xam ne mooy euh, candidature bu Ousmane Sonko euh, noo ko gisee ak yaakaar nga ne mën na doon lu jàll examen bi c'est en cours au niveau du greffe du conseil constitutionnel. waaw dégg naa ko démb ba génne bañ génne sax dépôt bi bañ dépôt ba pare génne nañ ko mu génn ci net bi. dañu def recours ci Ousmane Sonko dama ne ñaar moo ci am. Hmm. suñ ko réussiree. Hmm. am na lañ bëgg mais suñ ko réussiree wane nañ seen faiblesse. parce que gis nga dama koy wax ci suba ñun ba ñuy nekk ay booy di football nekkoon dëkk bi dafa am benn jour boo xam dafa mënul football mais bu mënee football dañuy wax ne non ki du ñuy football ak waa koñ boobu dañuy wax ne ñu non day football par force ñu leen non du football wala benn condition moo hmm. moom tànk gauche bi du laal bal bi su laalee bal maam dañoo xam maam. ñun dama ci tànk gauche ah non maam dafa mënul football maam lu ñu bëgg mu def deux pieds.

Il nga ay le motif. motif motif recours bi. est-ce que nekkul condamnation. waaw ñoom loolu la wax condamnation mais dafa am lu ci mais loi euh, loi amnistie bi fi jaar moo tax bul Ousmane Sonko. Mhm. dañ koo condamné ba pare maam dañoo génnee maam dañ condamné ñu ba il faut gars très attention ci affaire boobu. nous Ousmane Sonko dem c'est important à signaler jot na voté. Ousmane Sonko dañ ñu defar liste yi ba pare conseil constitutionnel génne liste bi na Ousmane Sonko dañ koo rejeté parce que li tax ko motif bi mooy condamnation définitive la am ci cour suprême ñu ñoo dem foofu ñu jëli ko moom moom la indi mu nekk nii. ci kaw loolu ñu génnee liste bi samedi ñaari fan ñetti fan yàggut Macky Sall na puus naa élection yi mais ci puus élection yooyu ci la Macky Sall waxee damaa bëgg dugal loi amnistie pour génnee ñëpp pour ñu appésé apaiser paysage politique bi. amnistie boobu lan la wax def na fait politique 2021 bépp fait politique bu am 2021 ba 2024 lépp lu ci nekkoon effacé nañ ko kon effacé gi ñu ko effacé moo tax mais na fekk na liste ba pare lan moo nekkoon objectif Macky Sall nan lañ mën a def ba intégré waat Ousmane Sonko ki nga xam ne mooy Karim Wade moom mënuma xas naa ba génn rek génn naa ci jomaay mun choisir moom la ñuy choisir kon Ousmane Sonko moomu léegi amnistie boobu moo tax bu mën a dem voté mais ñun ñëpp teg nañ ci biir Ousmane Sonko mën a dem vote ji kon kooku fan nga mën a taxawaatee naan éligible te loi amnistie boobu noonu kenn abrogé gu ko ñoom kay dama bëggoon xam ñoom fan lañ mën a teg ne waa ji mënut nekk candidat man looloo ma jaaxal maam ñun day nekk candidat ñoom ñoo xam ne day nekk candidat ñoom fan lañ mën a teg ne mënul nekk candidat gis naa démb gis naa seen lettre bi mais luñ ko ban liir naa ko ba mu jeex mu waxagun ba léegi dugal gun ñoom motif bi lan moo tax du nekk candidat te kii dugaloon la la loi d'amnistie. amnistie bi moom tey mooy def recours bi. mooy def recours bi xam nga maam kenn xamul incohérence bu ci am. <laughs> mais loolu lépp day taw day rek man lu ma conclure tey suba rek mooy gars yi dañu ragal. mais na lan moo hmm. nekku fi nga fal président boo xam ne yow sa photo nekku ci. yow yaa ne dem na ngeen falal Moussa Moustapha ñu fal Moustapha ay député yoo xam ne lan la am na ñoo xam ne sax mënoo woon a dem seen secteur Sonko nag lii mooy tettal na yow yaa ma xaj meeru ci meeru meeru Saint-Louis ah yow soo ñëwoon wóor na ma damay gañe ndegem waa jooju dem nañ période boo xam ne sax am na candidat yoo xam ne ci mairie yi Ousmane Sonko mënu fa woon a dem mais lan la ñuy def dañ ko nag defal vidéo rek ñu jugal ko ci YouTube bi suñ ko dugalee ci YouTube maam ñu ñu sponsorisé ko mu nga xam ne day daw ci secteur boobu noonu mais Bassirou Diomaye Faye lan lañ doon wax ñu bëri Ousmane Sonko da koo sacrifié ba léegi jagañaaw Ousmane Sonko dem fa local yi dañ koo gañe foofu noonu fu mu dem lu ci ëpp fu mu deg tànkam ñooñu dañoo gañe géejawaay gisoo dafa ñëw rek Ahmed Aïdara Khadija Mahécor Diouf jàll kon ndegam kooku du nekk ci liste yi moom day wax rek def leen ñu def rawatina maam jëmmam nekk ci liste bi mhm. kooku mooy lu abdul mooy lu PDS defoon en 2002 xaw ma 2003 mooy laay takkandeer mhm. xam nga boobu dañoo ñëw Abdoulaye Wade ñuy présidentiel ñu pare ñu ne photo wurtu feeñ ñoom mhm. Moustapha Guèye ñëpp di maam ñëpp di ko opposé wu Abdoulaye Wade photo wurtu feeñ wurtu feeñ mais lan lañ wax dañoo ñëw Idriss Seck ñëw def ci takkandeer pour bu ñuy voté ñu mën a ràññee photo Ah, Ablaye Wade kon bii mooy fooy fooy Ablaye Wade lu Moustapha di wax Macky su muy wax mooy dafay bëgg image su feeñee am na ñoo xam ne Macky rek lay gën am ah, ma ah, solo mais erreur bi mooy nekk favori am na ko xam ne su duggee gis Macky day dem fotal Macky Sall mhm. mais nag loolu tax ma ne nag moom Ousmane Sonko moom gars yi dañuy daw ko mhm. bu mu feeñ mhm. luñ mën a def ba image du feeñ ñoom dañ koy def parce que waa ji image am léegi kenn aduna ñëpp ko xam. Sénégal amul xalé bu xamul lan moy fët Ousmane Sonko mag mo jël soñé ñëwee lan la lay wax do laaj na kan Ousmane Sonko day doon a ah, Sonko gi ni kay da kay voté kon ñom li tax ñu def recours bi xam naa li tax ñu def ko mais malheureusement d'après bo défé analyse ak li fi jaar yëpp ci amnistie bi goo mën ñom ñoom daan ci am ndam. Très bien. Alors, Moustapha, euh, sur, euh, sur la même question, euh, recours bi, euh, le président euh, Macky Sall ak liste bi mu jité euh, daf recours bi japp nga ne dina antu. gis nga APR. Mhm. ni ñu yore woon dëkk bi noonu lañ ko continuer bu ñu joxaatoon noonu lañ continuer di xalaat ne dëkk bi noonu lay demee ba tey xam nga ñoom dañoo tàmm bu ñu daan xeex ak nit dañuy takk tànk yi takk loxo yi di xeex ak moom léegi ñoom fàtte nañ ne Macky Sall jóge na ñu amaat combat léegi ñu demaat ci conseil bi naka ñu tànk yi takkal ñu loxo yi ñu bëri <laughs> parce que Macky noonu la daan xeexee day écarté Sonko bi paa mun ne def Karim lay écarté bi paa ne Khalifa lay écarté bu écarté mbëru mag yi nag mais ana ana mbëru ndaw ñoo ñëw ati bismillah ñëw leen ati hmm. koo xam ne poids ñoom ñaar ñoom ñaar ñoo tolloo musu ci bindoo tàppet boobu moom ñemew ñu jàkkaarlu ak a doon mbër bu mag ci kanam dafa def tuuba du bokk Karim mën a doon mbër bu mag ci kaw dafa def tuuba du bokk bi ñuy dem 2024 mu seen Sonko di ñëw mu xam ne kii mbër bu mag la bu ma jubsee mën na maa daaneel hmm. mu ne ko yaa ngi ñëw waaye doo sëgg bëri fii ñoom noonu la ñuy comporté woo ba démb bi mu ñëwaatee réflexe boobu mooy ñëwaat li yi génn na ñu ne ah li kan moo fi mbër bu mag bi waaw nañ génnee mbëru mag bi léegi ñu xool naka la ba moom tamit du bokk ñu dem bëri ak mbëru ndaw yi seen seen seen seen esprit moom moo moom moo bindee noonu léegi nag incohérence yi nekk ñoo bëri noo mënee comprendre tey ji yéen yeneen conséquence constitutionnel dañu leen a corrompre hmm. ñoom juge yi ñoom ñoo juge dañu leen a corrompre Amadou Ba moo leen dañ leen a jënd jaruñoo wóolu leen fi lu ne ñi naan dañ leen naa jox ji wax lu nañu wax leen ko fi waaye yéen yéen a dellu tey ji juge yooyu nga xamante ne yéen a tey ji ne leen juge yi yéen léegi dimbali leen ñu ngeen génne Ousmane Sonko mi mu bokk léegi kañ ngeen wóolu juge yi juge yi ñu corrompre fan yi passé il y de ça six mois waaw ngeen dellu léegi ne juge yi léegi wóolu ngeen leen ba yóbbu leen te yéen yéen doon wóolu juge yi ne pour ñoom Abdou Mbow nañu leen déglu assemblée nationale ñoom ñoo ko doon def boobu mooy incohérence bi jiitu benn incohérence bi si topp Macky Sall tey ji bi bind il y a de cela six mois Macky moo bindoon ñu wax ko amnistie mun amnistie sama mbir la. Mhm. nee na dafa bëgg ñëpp bokk si bi daal léegi ñu defaat si six mois nga ne bëgg yow doo bokk comprendre li mhm. a six mois ci ginnaaw Macky Sall dafa toog mu ne dafa bëgg ñëpp bokk. def amnistie ñu dalal ñu apaiser. Mhm. léegi kooku bokk. ba gagné ñu defaat 6 mois nga ñëwaat taxaw ne ko damaa bëgg léegi dootoo bokkaat nga génnaat kon la la defaloon ay tappale la kon xanaa wala texte wala lan la. mi beneen incohérence boo xamante ne da nga koy constaté waat ci nga xam ñi nga xam ñi nga xamante ne moo di seen seen doxalin moom euh, Macky Sall li li li mu bëgg a def beneen mbir bi ci am pour man perte temps la perte temps la parce que su fekkente ne Ousmane Sonko voté na te code bi en son article 56 su ma juumul dafa ne tout électeur candidat donc boo voté rek candidat nga mën nga doon tout électeur candidat loolu Macky Sall moo ko ci defoon sew sew boobu mm-hmm. ba Ousmane la nga xamante ne ca la jotaat ci ay droit am comme voté na tey jii mënuñu koo xañ nankan du bokk ak euh, fi lay yem ak jële ci non non dafay bokk ci élection yi léegi nag comme Bécaye tudd na ko léegi xam nga ñoom intercoalition dafa am fu mu leen di gaañee parce que am na ñoo xamante ne tey dinañu voté keneen te te keneen ki lañu waroon voté ci intercoalition bi. Mm-hmm. parce que affaire photo yeeg yooyu la ak yooyu ne mais bu dee Ousmane Sonko ko jiite mm-hmm. xam ne côté boobu mën am loo xamante ne tamit ñoo mën nañ fa am ay perte ñi leen am fa ay bénéfice daal leen di gagné. loolu moo tax ma jàpp ne. seen recours bi ñu dugal non seulement daf leen di doyadil mais dafay wane seen seen ñàkk am fit ci ci ci ci ci bataille politique bi nga xam ne moom la ñuy doxee manam à chaque fois bu ñuy bu dem élection rek ñi ngi sét ay croque en jambe yoo xam ne dañ ko duggal kenn ñi ngi sét ko xam dañ ko jéem a wàññi kii du bokk jéem a accuser kii def ni def na le non pour man pour man euh, démb maa ngi si waxtan ak seen benn way mu né Macky Sall Macky Sall Sénégal déssalu ko dara et pourtant moom day wéy di desal Sénégal hmm. mu mu wax ma lu am solo mu né Macky Sall a été contraint à organiser les élections l'élection présidentielle te ñu bëri dañ koy fàtte Macky saal dañ ko forcé mu organiser élection yi mm-hmm. ñii dañ koy fàtte dañuy foog ne boo waxee dañ naan jël na nguur gi joxe na ko noonu non Macky dañ koo forcé mu def élection mm-hmm. léegi ñu forcé la nga def élection nga génn dëkk bi doyul de nga waroon maanu suñuy mbir nga bëgg a dellusiwaat naan da ngay campagne doyul nga ne da ngay dem kalaame ji pour nit bañ a bokk ci élection yi mais est-ce que yaa ngi comprendre Macky Sall ni mu ni mu ni mu nekk di def sénégalais ji mm-hmm. ci koo xamante ne yow tey ba nga génnee sa gannaaw ëllëg la sénégalais toog ne kii warul a génn

jàllale amnistie bi Ousmane Sonko bokk ñëpp bokk léegi yow ngeen wëlbatiku bëgg ñëw ne euh, du bokkaat beneen mbir moo ci bëgg a dool mais mbiru Barthélémy Dias tey ji am na ñoo xam ne waroon nañu ko mën a attaqué parce que conseil bi moom ba muy génnee candidature Ousmane Sonko lu mu ko wax mm-hmm. dafa dem wëri ji décision bi xam ne moo tukkee ci euh, atte bi ñu ko atte ak Mame Mbaye Niang mm-hmm. gisoon nañ ne kat dañ laa daan ci cour suprême tey jii ba at limi des am na ñoo mënoo ñëw décision bobu yóbbul ko conseil ba ne ko ki ngeen jaarale kat daanon nañ ko définitivement mo tamit génnee lañ ko ci élection yi mënul bokk parce que daanon nañ ko définitivement te kon dafa doon jurisprudence Ousmane Sonko mais conseil bi moom du am information la au moment de l'examen examen des des des dossiers ah mais normalement war na ko mais comme comme kenn signaler wul rek mom day toog seetaan rek d'accord accord alors ñu jàll ci dernier point bi on a euh, on va terminer avec ce, ce dernier point.